waa garaawul surprise mooy kan surprise mooy kii daf arbitre si fele na ci diggante surprise ak Siteu 2 Siteu 2 ngi dox ci kaw surprise ah Siteu 2 surprise Siteu 2 écrit bàcc Seras surprise école de lutte Jali Birama Thior Siteu 2 surprise <laughs> surprise bi tooyamaan la may nuroo la <laughs> prix Cité de allo ne woon naa leen tooyamaan la may nurool <laughs> songoon nañu Cité de surprise songoon nañu Cité de koy wëndeel xandal xandal <laughs> non xale yaa ngi bëre non xale yaa ngi bëre Cité de ak surprise surprise pour génn waay booy génn di am avertissement Cité jógal Siteu jógal munoo daanu daaneel Siteu oh la la génn nañ saako yi. arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na Siteu deux surprise Siteu deux surprise Siteu daañ la daan daan nañ la Siteu daañ la. ba dem na amateur yi jëy na weet daan naan ba